euh, Babacar c'est un petit frère et un ami quand bien même man ak moom ñu camp au début il a tâtonné au début de son mandat il n'a pas réussi même si je suis pas là pour parler de lui je lui souhaite quand bien même nous ne sommes pas du même camp qu'il réussisse son mandat parce que s'il réussit il l'aura fait pour les Thiessois actuellement comment ça actuellement il est en de mettre les pieds la où il faut actuellement ñi nekk Thiès di yeewoo Thiès gis nañ ni moom mu ngi commencé tegu ci yoon. pour am na ay chance 2024 wala. Euh, il peut avoir ses chances vers ces élections là il peut avoir ses chances le jeune maire Babacar Diop peut avoir ses chances comme quelqu'un d'autre bu Sénégal yi dégloo nag laa wax. Hmm. déglu ku leen di wax luy lu yenn maanaa déglu ku leen di wax luy seen njëriñ. Hmm. déglu koo xam ni la mu liggéey parce que nit ki da nga koy juger. sur des faits doo ko juger sur des suppositions si on relie et on regarde chacun ce réalisé <laughs> dans ce pays et pour l'Afrique doo fi génne benn candidat moo xam Amadou Ba la tudd moo xam Nguy la tudd moo xam keneen la tudd doo fi génne candidat ak profil bu gën le candidat Cheikh Tidiane Gadio. Babacar Cheikh Tidiane Gadio moo gën Babacar Diop. sa candidat moo gën Cheikh Tidiane Gadio moo gën Babacar Diop. Euh, xam nga diplomate lañ diplomatie lañ ma jàngal am na ci loo xam ñoom ñaar sekk nañ ko te du ma toog fii di ko wax vous comprenez ñun nag dañoo jàngal ni en diplomatie bu dee dañoo nekk dans un pays où pour faire le buzz il faut faire des déballages. ñun nekkuñu ci monde boobu. d'accord merci beaucoup luy jëriñ Sénégalais yi rek moo nekk mooy suñu objectif.